alhamdulilahi rabbil aalamiin waliy saalihiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursaliin nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmain amma baad mbokk jullit yi nekkinu jullit yi li nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel yépp ci ay jafe-jafe ci ay fitna ci ay problème ci monde islamique bi bu fekkente ni nit ki taxaw na ci loolu yépp mu settantal ko jàngat ko njàngat boo xamante ni bu xóot la xool tamit lan moo war a nekk yoon yi nga xam ne ci lañuy jaar ba fitna yooyu ñu teggil ko jullit ñi ci yan yoon tamit lañuy jaar ba fekk fitna ba du tàbbeeti ci jullit ñi wala bokk ñu wàññi ko li nga xam ne mooy ay jeexitam mu yàq yi muy def ci biir jullit yi moo xam seen wàllu diine la wala seen wàllu àdduna la bu nit taxawee mu settantal loolu waaye tamit gëstu ba gis ne li ëpp ci ñu bari ñoo xam ne yaakaar nañ ne ñi ngi ci njub dañoo topp ci ginnaaw ñàkk xam ci ginnaaw loo xam ne kenn du ko tuddee xam-xam jaxla lañ koy tuddee ñàkk xam la ndax borom xam dañuy wax ne fu xam-xam nekkul jaxla rek moo fa nekk amul lu nekk ci seen diggante ñoom ñaar bu fekkente ni nit ki settantal na loolu mu gis ne lu bari ci ay nit ñi ngi soobu ci ay mbir di ci dem te la leen ca yóbbu mooy dañoo waru ci loola ndax jugement biñ ci jox teguwul ci li lool li ñuy tuddee xam-xam bu wér ndax al ilmu ma qaama alayhi dalil comme ni ko cheikh al islam rahimahullah waxee bu fekkente loola kon du xam-xam bu wér boo xam dañ koo settantal ba am ci firnde waaye ci yeneen considération la ko nit ki teg wala ci la sukkandiku ba tax mu soobu ci mbir yooya demeewu ci xam-xam ba noppi yaakaar ne li mu nekk njub la bu nit ki xoolee loolu gis li muy jur ci ay yàqute ak ay fitna yoo xam ne dalay day tàbbi tey ci jamono te loolu mooy sabab bi loolu mooy cause bi ndax yàlla waxoon nañu di ñu loo ñi nga xam ne dañuy nekk ci réer ba noppi yaakaar ne jëf dañuy def jëf ju rafet la jëf ju baax la fekk ne seeni jëf sànku na bu yàgg qul hal nunabbi'ukum bil axsarina a'malan alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa aaye boobu donte boo ko toppatee ba jeex di nga gis ne ci ñu génn ci lislaam lay wax ñoo xamante ni gëmuñu yàlla subhaanahu wa taala waaye bu njëkkoon as salafu saalix ci yi daan nañ ko tegtaloo di di di mbiru xawaarij yi bi xawaari yi génnee Ali ibn Abi Talib daan na jàng di faral di jàng aaya boobu di ko sukkandikoo ci seen mbir ak ci seen taxawaay kon loolu mooy wane ne jullit mën na cee tàbbi ci ci mbir moomu mooy di def loo xam ne réer la ba noppi yaakaar ne yaa ngi ci njub nit ku nekk war na ko moytandiku bu fekkee nit ki settantal na loolu yëpp dina àgg ci benn résultat résultat boobu nga xam dina ci àgg gëstoom ak xoolam moom moo ko ci yóbbu loolu mooy xam-xam mooy jumtuwaay bi gën bu ki di jëfandikoo ngir mucc ci fitna xam-xam ndax balaa ngaa mën a sóobu ci yoon yi nga xam ne moo lay soril fitna da nga koo xam ndax comme ne al imaam waxoon daf ne baabun al ilmu qabla al qawli wal amal daf ne woon bunta ngi nii boo xam ne dafay wax ci ne xam-xam moo jiitu wax ak jëf mu indi wax ji yàlla wax ne faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zanbik mu indi wax ji yàlla wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko na nga xam ne amul lenn lu ñuy jaamu ci dëgg lu dul yàlla soog ko wax ne ko jéggalul say bàkkaar jéggalul say bàkkaar mooy mbooleem say jëfi diine yi ngay jëf yépp ndax loolu moom mooy jubluwaay bi yàlla jéggal la say bàkkaar waaye xam-xam bi la jiital alimaamul buxaari ne fa fa badaa bil ilmi qabla al qawli wal amal yàlla dafa jiital xam-xam laata muy santaane jëf ak wax kon xam bi mooy jiitu laata nit ki di jug di ci ay yoon ne dafa bëgg a ci fitna faaw mu xam yoon yooyu nga xam ne moo koy yóbbu ci ci mucc googu kon xam-xam ban xam-xam xam-xam boo xam ni dafa sukkandiku ci alquraanu yàlla ji subhaanahu wa taala ci déggin boo xam ne déggin bu mucc ayib la ak ci lu wér ci sunna yonente bi alayhi salatu salaam mu ànd ak tamit déggin boo xam ne déggin bu mucc la ndax loolu dafa jar di préciser bu baax a baax ndax ñëpp dañuy wax ne dañuy sukkandiku ci alquran ak sunna waaye déggin yi mooy problème bi déggin yi xam-xam boobu tamit nekk xam-xam boo xam dañ koo sàkku sàkku bu mucc ayib loolu tamit beneen condition la ci ndax léeg-léeg problème bi du nekk ci texte yi mais problème bi mu ngi nekk ci diggante nit ki ak texte yi ni muy jëflanteeg texte yi lan moo ko yóbbu ci loolu li ko yóbbu ci loolu mooy ni mu sàkkoo xam-xam muy bagage bi nga xam ne outils yi nga xam ne moo koy may muy interpréter texte alxuraan yi ak texte sunna yi bu fekkee jumtuwaay yooyu nam ko fàggoo baaxul muccul ayib nam ko waroon jàngee jàngeewu ne ko ni nam ko waroon maîtriser déggee ko déggeewul ko noonu bu boobaa bu wëlbatikoo songu texte yi ne da ciy jëlee loo xam ne ay atta def li ñu tuddee istinbaat istinbaat boobu du nekk istinbaat bu wér muy nocci boobu muy nocci àtte yi du nekk bu wér moo tax ay njuumte lay jur la muy di jële ci ay dégg-dégg ci texte yi day am yu bëri yum ci waroon a bàyyi waale xel du ko ci bàyyi xel ndax xelam nekku ci ndax nit ki loo xamul xamuloo ko jàppuloo ne loolu war nga ko tenir compte war nga ko considéré waale jamono booy sukkandiku ci aaya bi wala ci xadis bi jàppuloo ne loolu yoonam nekk na ci alors que yoonam nekk na ci loolu boo ko ci bàyyiwul xel sa déggin bi nga war am ci aaya bi ak ci loolu foog nga jàng ba xam ne loolu war nga koo def nga soog koo mën a def mais boo àggul ci niveau bu lay may cim njàng bu lay xamal ne loolu waroon nga koo bàyyiwaale xel boobaa boo ñëwee song aaya bi wala xadis bi lim la jox ci déggin rek loolu fa ngay yem leneen luñ ca war a bàyyi xel doo ko doo bàyyi xel kon xam-xam boobu mooy jumtuwaay bi gën bu nit ki di jariñoo bu fekkee condition yooyu ñu ci wax daje na ca ngir mën a tegu ci yoon woo xam dina ko muccal dina musal diineem ci fitna dina musal diineem ci ay rëq-rëq ak ay problème te yonente bi alayhi salaatu wasalaam junjoon na lu mel noonu ndax doon na wax ne àdduna du tukki mukk li fekk demuñu ba nit ñi àgg ci bis boo xam ni nit ñi dinañ reyante kañ ñi rey di tuur deretam du xam lu tax ñu koy rey kay jël tamit ngànnaay di rey du xam lan moo tax muy rey yenn ci borom yi xam-xam dañ doon wax ne loolu mooy xëy na xeex bi nit ñi di xeex ci wàllu àdduna xeexu àdduna waaye boo ko seetee di nga gis ne yonente bi alayhi mu ko waxee reyante boo xam ne yemul rek ci àdduna mooy reyante boo xam ne nit ñi dañ koy jug di ko def te teguwul ci xam-xam boo xam ne bu leer la nit ki dafay rocci ngànnaayam di daganal deretu jullit wala deretu nit yaakaar ne war na koo tuur te daganal boobu mu ko daganal tegu ko ci firnde bu leer bu jóge ci yàlla kon ci kaw ñàkk xam la ko teg sabab yi ko tax a jug di jël ngànnaay di xeex mën nga wax ne ay manipulation la yuñ ko manipuler mais moom xaqiqatan xamul dëgg-dëgg la ko lal ka cay dee tamit deretam di ca tuuru xamu ko te da nga waroon a tey ba xam ba am lu la leer ba am ci mbir mi ndax deret bu bu bu ñoŋ dee su ko daganal ci loo xamante ni sikki sàkk la ndax al yaqinu laa yuzaalu bi shakk ci loo xamante ni leerul loo xam ne dañ naan daraa nga ca problème nga ca bu ko defee nit ki dem soobu ci fitna yooyu nga xamante ni ay lëndëm lëndëm a nekk ca biir ay lënt lënt ak ay point d'interrogation yu baree bari di ca am ay taxawaay yoo xam ne ma ngi cay tuur ay deret ci loo xam ne teguwul ci xam-xam ak ci firnde bu leer boo xam ne doyoon na pour mun caa sukkandiku bu ca tuuree deret deret ba mu ca tuur teguwul ci dëgg buñ ca tuuree deretam tuuruñu ko ci dëgg mu ne kon ki nga xam ne mooy rey xamul moom ci lu tax muy rey kañu rey tamit xamul ci lan lañ tuur deretam mooy sabab bi nga xam ne dëgg-dëgg ci la deret yi di tuuroo ñette ne di tuurante ay deret xamuñu ko lan la ci teg bi ñu ko waxee ne ko loolu naka la mën a amee daf ne loolu mooy alxaraj alxaraj mooy rey mooy rey gu bëri la gu dem ba jeexital ci nit ñi influencé leen ñuy reyante mu ne alqaatir wal maqtul fi naar ka rey ak kañu rey yépp safara lañ jëm loolu tekkiwul leen a yéefaral wala daf ne buñ demee safara dañ fay sax waaye nañ jëf joo xam ni tax nañu yelloo mbugalu yàlla yàlla nag mën na leen a jéggal ndax nit ki mën na am ngant ndax rafet tam bu mu amoon ak naïveté bu nekk ci moom ñu manipuler ko dugal ko ci ay mbir mu tuur ca tam wala tuur ca deret ci ay nit fekk ne dañ ko nax loolu xëy na kooko mën na am yàlla jéggal ko digganteem ak boroomam la waaye yonente bi alayhi salatu wasalam li mu ci teg daf ne alqaatilu wal maqtulu fi nnaar karaay kañu yépp safara lañ jëm loolu la ci yonente bi alayhi salatu wasalam teg ko waral mooy dafa teguwul ci xam ndax waxoon na moom ali xadis ba mu ngi saxiix muslim yonente bi alayhi salatu salaam waxoon na ni ñii atte ñett lañ ñi atte ci nit ñi moo xam atte boo xam dañ la jox kilifteef ngay atte ci diggante nit ñi wala da ngay sukkandiku ci xam-xam di ubbee di def fatwa xadis bi dafay ëmb ñaar yëpp benn bi nga xam ne day ànd ak mën a def ak mën a dindi muy qadaa bi nga xamante ne day ànd ak sulta mooy daan ak pouvoir wala bi ngeen beneen bi nga xam ne àndul ak pouvoir ay orientation la yu nit ki di def ci xam-xam bi ko yàlla jox buñ ko appliqué baax na buñ ko appliqué wul moom yorul force bu ko appliqué ci nit ñi kooku mooy mufti bi ñoom ñaar ñëpp dañuy dugg ci xadis bi li yonente bi alayhi salatu wasalam wax ci xadis bi mooy ñii nga xam ne ñooy atte ci di dagganal ak di xaraamal di sukkandiku ci alquran yàlla jaag sunna yonente bi alayhi salatu wasalam mun a ñett lañ ñaar safara lañ jëm kenn ki aljanna la jëm ki jëm aljanna mooy ki xam dëgg attee dëgg xam dëgg attee dëgg ngis mu jëfandikoo baatu xam kon loolu li muy tekki mooy prise de position balaa moo am ci lu tudd xam-xam la war a nekk ci lu tudd xam-xam mais malheureusement lu bëri ci ñun suñ suñu genre yi tey ci jamono ji ci ay émotion la ñuy gën a sukkandiku ci ay sentiment la ñuy gën a sukkandiku bu ay bunt yu yu rëy ci bunt yoo xam ne ci buntu l'islam la bokk ay problème day am ci jamono ji yoo xam ne ci buntu yooyu la aju nañu war a maitriser bunt yooyu jàng ko ba xam ko ba mën caa jële lu leen may ñu am taxawaay bu jub ak njàngin bu jub ci xew-xewu jamono defuñu ko te terewul ñoom ñooy gën a dëgër fit ci di ñemee jël ay position ci xew-xew yooyu alors que base bu dëgër ci l'islam ci xam-xamu diine bu la may nga am njàngat bu mucc ayib ci xew-xewu jamono amuloo ko ñi la ko ëppalee sax da ngay wëlbatiku di dal seen kaw pour ñu ñëw fekk si la ci yow position bi nga am te sa position amul benn base bu dëgër ci l'islam lépp ci ay sentiment la tegu ak ay analyse personnelle loolu moom moo tax yonente bi alayhi salatu wax ne koo xam ne dafa xam dëgg attee mu teg keneen ki nga xam ne mooy ki xam dëgg attee bànnee xam loolu fitna la mu ne kooku tamit safara la jëm ñetteel bi mu ne koo xamante ni xamul ba noppi di àtte ci mbiri nit ñi mu teg ci loolu ne safara la jëm yenn ci borom xam-xam yi wax ne foofu tafsil amu fa tafsil amu fa mooy waxul ne bu dëppoog dëgg aljanna la jëm bu dëppoog bu bu juumee safara la jëm waxul loolu yonente bi alayhi salaam dafa généraliser daf ne ku xamul di àtte loolu la wax mu ne safara la jëm yenn ci borom yi xam-xam dañuy wax ne loolu li muy tekki mooy bu dee atte ba mu atte dëppoo naag dëgg ak dëppoowul ak dëgg yépp safara la jëm ndax warul atte ci kaw ñàkk xam balaa ngay atte ci diine di wax ne lii dagan na lii xaraam na lii nañ ko def lii waruñ koo def dafa war a tegu ci xam-xam ndax diine kenn waru ci wax loo xam teguwul ci xam-xam xadis boobu mi ngi ci sunanu abi daawud di xadis boo xam ne bu wér la moo tax képp koo xam ni sa dëgër fit dalaa yóbbu ci di àtte ak wax ci dereti nit ak ci seeni alal ak ci seeni der te teguwul ci xam-xam xamal ne yaa ngi ubbi buntu fitna buntu yàqu-yàqu ci diine moom ngay ubbi yàqu-yàqu boo xam ne bu ñëwee dina làmb diine làmb euh, àdduna mu bokkaat ci teg ci texte yi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam jëlee nañ ko ci moom ci muy wane ne bu demee ba xam-xam néew ci nit ñi bokk na ci facteurs yi nga xam ni dafay favoriser fitna di gën a gaaw a bëri te bu bëree tamit di tar ndax lu xam-xam di gën a néew ci nit ñi ñuy gën a dem ci beneen force bi ndax ñaari force yi mu am l'argument de la force ak force de l'argument imma nga jëfandikoo sa ay argument muy xam-xam bi mu nekk sa force force boobu lu mu gën a dëgër ci yow ngay gën a ñàkk soxla jëfandikoo beneen force bi muy doole kàttan ngànnaay waaye boobu lu mu gën a néew ci yow néew boobu faiblesse boobu ngay sentir moom moo lay gën a pousse ci nga yaakaar ne sa problème yépp kàttanu ngànnaay moo ko war a moo ko war a résoudre moo ko war a régler moo war a lijjanti problème bi léegi kon bu nit ñi néewee ci côté boobu rek vide boobu fi nekk ci xam-xam bi moo leen di pousse ba seen fitna day nangoo tar léegi nangoo tardé nangoo bëri moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam junjoon ne buñ demee ba xam-xam tàmbale néew ci nit ñi yàqute ak fitna buntu fitna yi dafay tar moo xam fitna yi bànneex la wala fitna yi euh, ngànnaay la ak rayante la mu doon wax ne yàlla subhaanahu wa taala ci mujjug jamono lu àdduna di di dem xam-xam di di néew yàlla di yëkkati xam-xam mu waxoon ne xam-xam boobu yàlla di yëkkati ci mujjug jamono ak doxuk àdduna nekkul ne bu ko yàllay def di ko yëkkati daf koy nocci di ko rocci xam ci dënn ñi ko xamoon ñu fàtte ko waaye mi ngi koy yëkkatee ci rey ak di faat boroom xam-xam yi bu boroom xam-xam yi di faatu bu ko defee xam-xam bi di wàññeeku di ruus ci nit ñi yi di faatu xam bi di ruus ci nit mu dem ba ñu fiy nekk ñu xamul la ñuy doon nit ñi jàppee leen ay boroomi xam-xam ndax benn sabab ci sabab yi am na sabab bu tax ñu jàppee leen ay boroomi xam-xam ndax bu ñu nekkee ñun ñëpp yem nekk ñu xamul ñu jël ñenn jiital leen ci yaakaar ne ñoo xam am na lu tax am na sabab sabab bi léeg-léeg dëgër fit lay doon dëgër fit ak gën a bëri wax ak gën a ñemee dugg ci ay mbir léeg-léeg loolu lay doon mooy day am ñoo xam ne chaque fois ci groupe bi ñooy gën a ràññeeku mais léeg-léeg li ñu tane ña ci des sax du bëri mais dañuy gën a ràññeeku ci ay yeneen mbir yoo xam ne moom la ñuy def ba nit ñi teg leen fu ñu àggul loolu léeg-léeg mooy indi yenn waru yi ci nit ki jox ko ci ci ci diina kilifteef gu mu mérité wul mu cay yàq loo xamante ne kenn xamul fu fu mu yem xadis boobu liñ ciy jàngatee bu fekkee te nañ ko lu bari la bokk na yonente bi alayhi salaatu wax ne buñ jiitalee ñooña ñu àggale xadis bi buñ jiitalee ñooña dañoo dañuy sànku di sànkaate mooy la ñuy def ci réer lañ koy def bu ko defee ñoom réer nañ ca mbir yooya teguwuñ ci ci xam-xam ba noppi ña leen ca toppoon jiital leen itam ñu sànk leen ndax ñi leen jiital dañ leen jiital pour topp leen kon ñu leen yóbboo ci réer ñu topp leen ca bu boobaa dañ leen di sànk liñ ciy jàngee lu bari la bokk na ci mooy ne borom xam-xam yi ñoo war a jiitu ñoom lañ war a jox responsabilité yi ci diine ndax li tax yonente bi alayhi bu demee ba borom xam yi faatu nit ñi ñu xamul la ñuy jiital lan moo tax mu ne nit ñi ñu xamal la ñuy jiital li muy tekki mooy bu fi borom xam-xam yi nekkoon ñoom ñoo war a jiite. kon loolu benn déggin la bu ñu am ci xadis bi ci ne ci diine kilifteef buñ koy jox nañ ko jox ku ko xam xam boobu nag tekkiwul ne ala kulli xaal xam-xamu rek lay doon mais lu ci nekk buñ koy jox nañ ko jox ku ko xam même sax bu dee salle d'informatique bu ñu am ci jàkka ji di fa yëngatu ci wàllu liggéey ki mel noonu nañ ko jox koo xam ne moom borom xam-xam la ci loolu borom xam-xam la ci loolu mu bokkat ci itam fii ñu jànge ci xadis bi mooy ne wàññiku boroom xam-xam yooyu ci seenuk faatu euh, danger bu rëy la ci ci ci jullit yi danger bu rëy la lu boroom xam yu mag yi nga xam ne seen xam-xam daanaka ñëpp xawoon nañ ko nangu jox leen cër xam seen dayoo ci xam-xam ñooñu lu ñu gën di wàññeeku ci biir jullit yi rek muy gën a yóbbu nit ñi ci danger parce que day bàyyi benn vide boo xam ni pour après ñu ut am lu ko fàtt lay jafe ñi fi nekk ñu ci bëri ay la ñuy doon yoo xam dañuy yabante ñemente ñemente wegeel gi fi gi ñu amoon jëmale ko ci ñenn ñi bu bu bu fi nekkatul ci ñi fiy gis ci ñiy des ci seen ginnaaw rek bu fi wegeel googu nekkul rek dangay gis ne fit day daal di nit ñi seen seeni fit day daal di dëgër ci sañ def lu leen neex sañ def yu bari ndax ñañ ca daan bàyyi xel ak xool ñu nekkatuñ fi bu ko defee ci la bunt yu bari di ubbeeku loolu moo tax abul Abu Darda daan wax ñamu mu jamononte naan leen moo lan moo tax may gis seeni boroomi xam-xam wàññeeku di faatu te ñi xamul ci yéen jànguñu gaaw leen ngeen jàng balaa ñu fay jële xam-xam ndax jëjjële gi fi yàlla di jëfee jële xam-xam kat mi ngi nekk ci di faat borom xam-xam yi loolu daan na ko wax loolu liñ ciy jële mooy ne saa boo xamante ni borom xam-xam yaa ngay faatu te ña xamul jànguñu ci ñoom nañ war a jàngee pour xam-xam bi ñu yoroon des fi kon saa bu borom xam-xam yi faatoo rek xam-xam bu bari dafay dem mu bokkaat ci itam ba léegi ne ñàkk xam bi nit ki di ñàkk xam ba noppi ñàkkaat xam ne xamul muy ñaari ñàkk xam yu nekk ci moom ñu ko tuddee jëxla murakkab mooy ki xamul te xamul ne xamul nga xam ne ñaari ñàkk xam moo nekk ci moom mooy ñàkk xamam bi mu ñàkk xam ci yi muy wax ak ci yi sóobu waaye beneen ñàkk xam bi mooy ñàkk xam bi mu ñàkk xam ne moom xamul loolu lam jàppee ne xam-xam la ci loola la mu koy def du xam-xam ñaari ñàkk xam yooyu ki ko boole ñu ko tuddee jëxlu murakkab mooy faral di dëgër fit dëgër fit bu koy yóbbu ci di sóoru ay mbir yoo xam ne du moroomam ndax du ko xam ñàkk xamam mooy tax mu yaakaar ne loolu du problème loolu la ñuy jàngee ci xadis bi ndax boo gisee dafa jël nit ñi ginnaaw borom mu xam mu def leen ñaari kuréel kuréel gi topp ak kuréel gi nga xam ne ñooy jiitu ñiy jiitu daf leen melal ne ñoom ñaari ñàkk xam moo nekk ci ñoom mooy ñàkk xam biñ ñàkk xam ak timit ñàkk xam ne ñoom xamuñu moo tax ñu nangoo jiitu ndax bu ñu xamoon ne xamuñu duñu jiitu di jël responsabilité yi nga xam dañ koy jël léegi bu ko defee dañuy réer duñu yem ci réer mais dañuy réeralaati nga gis ne kon ñàkk xam boobu moo gën a bari ay conséquence ndax la plupart kim nekk ci moom du yemale ñàkk xamam ci boppam dafay faral di jéem a fexe di orienté ñeneen ak di leen influencé parce que yaakaar na ni am na xam-xam bu ko may mu mën a orienté waate voilà léegi bu xamoon ne xamul dina toog jàpp njàmboram bu amee lu ko lënt ci diine mu jàngi ko wala mu laajte ji ko ki xamul li ci ëpp te xam ne xamul noonu lay faral di def bu nit ñëwee di ko laaj mu ne ko ah man kat tanewu ma la xanaa ma laajteel la wala ñu dem ci diw wala yow nga dem ci diw laaj ko parce que xam na ne xamul reconnaître na ñàkk xamam muy gàttañ lu xam-xamam wala gàttu xam mais ki xam ne contraire bi la kooku moom la plupart boo ñëwee mu tojal la lépp expliquer la te lépp ci kaw ñàkk xam lay tegu wala sax moom moo lay fekk ji ba fa nga nekk ne daf lay jéem a xamal wala mu orienté la te lépp ci kaw ñàkk xam lay tegu mu ciy yi nga xamante ne dañ koy jële ci boobu mooy ne saa boo xamante ni ak ñàkk xam jiitu na wala ay nit jiital nañ leen ci kaw ñàkk xam ñu am te kilifteef ga ñàkk xam la tegu nañu xam ne buntu réer ak buntu fitna ak buntu yàqute tijjiku na ndax li yonente bi alayhi salatu salaam mooy bu nit ñi jiitalee ñoo xam ne xamuñu rek nee na fa dallu wa a nee na la cay topp ci saa si mooy dañuy sànku di sànkaate kon buntu sànkute moom tijj ko mooy nga jiital ñoo xamante ni jiitaloo leen ci kaw xam la nga xamante ni ci loolu nga leen jiital mu bokkaat ci itam ci ñuy jàngee ci xadis bi mooy ne xam xam-xam xam moo koy xam-xam moo koy xam mooy ne liy may nit ki mu mën a ràññee ak xam ci nit mooy mu am xam bu mu sukkandiku bu ko bu tax mu mën a xam ne kii xam na wala xamul wa illaa lu ci bëri ci nit ñi tey ci bëri waxu nit ki ak mën a waxam rek léeg-léeg ci la ñuy sukkandiku pour ne ah moom borom xam-xam la. yaakaar naa bu ñu ko seetloo ci suñu dëkk bi da nga koy gis da ngay gis ñu fi wax ñoo xam ni ñu doon xool tey seen niveau ci xam-xam da nga naan ci niveau primaire lañ toll waruñ sax toog di wax ci lislaam waaye nit ñi dañ leen di déglu ay junni junni nit di leen jox seen nopp di leen déglu ndax seen wax ju bëri ak façon bi ñuy waxee tax na ñenn jàpp ne am nañ xam-xam li lu waral loolu parce que ñi leen di juger di jàpp di xool ci ñoom ndax am nañ xam-xam wala amuñu xam-xam amuñu benn base benn notion bu leen may ñu mën a xam xam ak xamul. léegi yow bu fekkee amuloo benn base boo sukkandiku pour mën a ràññeetle ki xam ak ki xamul léegi ci lan ngay sukkandiku ci mbiru yaa neex rek yaa ma neex wax ji neex na la waxin bi neex na la ak yeneen yu ci aju nga daal di jàpp ne kon kii borom xam-xam la nga dem seeti ji ci moom xam-xam ndax loolu la yaa yonente bi alayhi salaam wax ne ittaxada annaasu ruusan juhaalan nee na nit ñi dañuy xam ne ay juhal lañ ñu xamul lañ ñu jiite leen def leen ay kilifa yamuñ ci waaye def ne fa su ilu ñu laaj leen dañuy dem di leen laaj mooy kon yaakaar nañ ne am nañ xam-xam bu ñu leen mën a orienté loolu yépp li muy tekki mooy seen ñàkk xam moo leen tooñ ndax moo leen jox jugement boobu nga xamante ni bu erroné la ci yaakaar na ñooñu ñu xam lañ te xamuñu moo tax ñu daan wax naan min sharafil ilmi annahu la yu'lamu illa bihi bokk na ci tedd ak xam-xam mooy ne mbir la moo xam ni xam rek moo ko mën a xam mooy li ñuy wax naan xam-xam ko mën a xam mu bokkaat ci itam ba léegi ci nga xam dañ koy jàng ci xadis bi mooy ne xam-xam ca ña ko yàlla jox ñu xóot ca ba am taxawaay bu dëgër ci ñoom lañ ko war a sàkku ji boo ko sàkku jee ci keneen ku dul ñoom ñu sànk la ndax li mu waxoon ci ñi nga xamante ne xamuñu daf ne bu ñu leen laajee rek ñu sànk leen li muy tekki kon mooy booy ut xam-xam ci di ko jàng wala nga koy laajte dama laajte ji ko ci ne ko xam moo tax yàlla lim ñu santoon mooy fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun laaj laaj leen ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox xam-xam bu fekkee xamoo leen kon góor góorgóorlu ci jàng ak dellu ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox xam-xam boobu sàkku ko ci ñoom loolu lu war la te xadis bi daf koy feddali te itam yàlla subhaanahu wa taala bim ñuy wax ne bu ñu xamul pour ñu dindi ñàkk xam boobu ci ñun am xam-xam yàlla bim ñuy jox yoon wu ñuy jaar pour loolu mën a am benn yoon la ñu jox mooy dem leen laaji borom xam-xam yi indiwul beneen wax na ko ñaari yoon ci alquran saa bu ko waxee def naan fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun rek lay wax bu ngeen xamulee laaj leen ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox yonente bi alayhi salaatu salaam dafa mës a yebal ay gaay ñu dem ci yoonu yàlla ci benn mission biñ demee foofu kenn ci ñoom gaañu ci bopp bi biñ ñëwee ba ci yoon wi fanaan guddi mu yeewu ak janaaba gént yeewu ak janaaba bi mu yeewoo mu laaj ñi mu àndal ndax mën naa tiim ñu ne ko doo tiim da ngay sangu mu sangu bopp bi sol ndox góom yi sol ndox mu faatu biñ ñëwee wax ko yonente bi alayhi salaatu salaam daf ne ñoom ñoo ko rey yàlla na leen yàlla rey moo lu leen tere woon a bi ñu xamulee garab gi nga xam ne mooy faj ñàkk xam mooy laajte foofu tamit ci xadis boobu benn sabab benn yoon la tudd boo xam ne nit ki war na caa jaar bu xamul ba dindi ñàkk xamam boobu mooy laajte daf ne ala saalu xiinama lam yaalamu mu teg ci ne fa innama shifaau lay innama adaatu xasra la li nga xam ne moom mooy faj ñàkk xam mu ne as sual mooy laajte loolu la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax kon loolu moo tax nit ki dellu ci yoon boobu nga xam ne moom la yàlla xàll yonente bi alayhi salatu wasallam xàll ko ci xam ak sàkku xam-xam dañ ci war a delluwaat mooy tundiku trop tuuti matériel ak technologie bi nga xam ne tey dafa jàppandi trop ci ñun ku nekk yaakaar ne mën na xamal boppam sans pour autant mu dellu ci borom xam-xam yi dañoo soxla dellu ci borom xam-xam yi ñu jàngal ñu yar ñu teete ñu ci xam-xam xam-xam dafa am ay teggin boo ci dugalee sa bopp mënoo xamal sa bopp teggin yi mu war ak teey gi mu war ak li mu laaj yépp ci ay étape ay niveau munoo ko xamal sa bopp da nga ciy demee nu la neex la plupart boo dee jàngal sa bopp da ngay faral di teel a woru ci li nga xam ndax da ngay teel a jàpp ne li nga xam bëri na da a am yëg-yëg ci sa bopp ne soxlaatuloo dem ci kenn ndax li nga xam doy na sëkk fekk ne waru googu ñàkk bi nga ñàkk jog-jog ñu la ëpp xam-xam seen ëpp gi ñu la ëpp xam-xam wan la sa niveau ni mu tuutee loolu moo koy faral di waral moo tax kon foofu am na benn risque bu fa nekk baax na nit ki jëfandikoo ay jumtuwaay ngir def ay recherche mais na fekk formation de base bu dëgër nekk ci moom wa illaa boo beroo ci nouvelle technologie yi ak yooyu rek bëgg ne da ngay gëstul sa bopp ak jàngal sa wala njàngin boo xamante ne yàgg say moroom yoo xam ne mënuñu laa yar mënuñu laa former orienté la ñoom ci ñoom ngay dem ñu la koy defal li ci ëpp teggi ni ci war euh, war caa topp ci teggi xam-xam du ci am te al imaamul awzaa'i daf doon wax naan laa yanbulu al mar'u bi shay'in min al ilmi xatta yuzayyina ilmahu bil adab al imaamul awzaa'i daf daan wax naan bu njëkkoon ak salaf dañ daan wax ne nit du dem ci benn xam-xam bañ ko cay naw di ko ci wekk te rafetalul xam-xamam boobu ak ay teggin bu rafetalul xam-xam bi ak teggin rek du ca am mukk lu ko nit ñi wegee ak di ko ko nawee ëllëg kon foog loolu ànd ci moo tax Sufyaan Sawri doon wax naa nu ila qalilin min al adabi ahwaju minna ila kasirin min al ilm doon na wax na ñun lu tuuti sax ci teggin lañ gën a soxla woon tey que xam-xam bu bari bi ne ñi nekk fi te àndul ak ay teggin ndax boobaa dafay gis nga gis ne li muy yàq sax moo ëpp lu muy defar kon delluwaat ci njàngin boobu nangoo muñ ci xam ak wàcce suñu bopp ci jàng ci ñoo xam ne ñooñu tane ñu jàngal ñu yar ñu orienté ñu formé ñu ci xam-xam bañ am ci ay base yu dëggër loolu foog ñu delluwaat surtout ndaw ñi surtout jeunes bañ a yàkkamti njàngum xam-xam boo commencé ñam neexaay bi jàpp na rek nga daal di yàkkamti loolu li ci ëpp ay yàqu ay yàqu yàqute lay jur yàqute yu bëree bëri lay jur kon delluwaat ci loolu muñ ci xam-xam loolu dañ ci insisté bu baax a baax a baax mu bokk li ñu delluwaat ci xadis bi mooy nit ku nekk war naa xër ci dindi melokaanu réer ci boppam fexe ba xam nekk ci moom am ay base yu dëgër yoo xam ne mën na caa ràññee dëgg way laa bu ko deful rek ñu sànk ko ndax xadis bi li ci yonente bi alayhi salatu wasallam wax mooy bu nit ñi demee ba amatuñu ay repère yu ñu yu ñu dellu ci ñoom ci ay boroomi xam-xam ci ñu xamul la ñuy dem buñ demee ci ñu xamul ñu sànk leen kon war nga fexe ba melokaan boobu bañ a nekk ci yow ak lu jamono doy doy war nga fexe ba di góorgóor di jàng sa diine pour bañ a mel ne ñi nga xam ni seen ñàkk xam da leen di yóbbu ci ñuy topp ñu xamul ñooña sànku sànk leen mu bokkaat ci li ñuy jëlee ci xadis bi itam mooy mbiru jullit ñi seen nekkin seen li ñu war a def en tant que communauté seeni position fitna yi am problème yi am ak mbir yu mag yu màgg yooyu loolu lu lu sensible la lu doy war la loo xam ne du sama classe gi wala ku mel na man mooy taxaw di ci di ci di ci dogu di ci di ci di ci ubbee di ci fatwa di ci jël ay position naan lii lañ war a def lii lañ war a wax lii lañu war a nangam dayoo bu mu am weesu na loolu niveau bi nga xamante ni moom lañ ci war a waxee weesu na foofu bu fekkee nit ki xamee na ko noonu dina tax mu gën koo ragal gën cee tey benn kàddu ku mu ciy yëkkati mu jàngat ko xoolaat ko bu baax xool ay conséquence am ëllëg lan lay jural jullit ñi ndax mbir mi nekkatul mbiru personnel mbiru toute une communauté la mbiru avenir lislaam la ak jullit ñi ak seen nekkin mbiru seen i deret la mbiru seen i alal la mbiru seen diine la balaa nga koy jël di ko dugal ci mbir ci ay fitna ay danger war nga ko xool bu baax xool bu baax lan lay jur boo léegi ay résultats mais du ay question de principe sa principe bu bopp wala sa sa conviction personnelle mbir mi nekkul foofu yàlla subhaanahu wa taala li mu waxoon daf ne woon ñoom saa boo xamante ni mbir mu jégg dayoo bu màgg ñëw na buy waral ak tiit wala dal dañ tey nekk di ca xuus di ca wax yàlla ne loolu day waru nekk seen taxawaay li war mooy mbir mu màgg mu am dayoo bu ñëwee dal ci kaw jullit ñi jëm ci jullit ñi nañ ko delloo ci yonent bi alayhi salaatu salaam wala ñu delloo ko ci yàlla baaxee xam bu ko defee ñooñu dinañ jàngat ci xam-xam bi jox ba génne ca lan lañ ca war a mën a jëlee ci ay taxawaay foofu yàlla tudd fa keneen ñi mu fa tudd mooy ar wa ulul amr ulul amr boobu li mu fassiroona yi wax dañ ne mooy al ulama ndax ulul amr dina tekki ñi yàlla jox kilifteef ci wàllu nguuru àdduna ci jullit ñi comme dina tekki tamit ñi nga xam ñooy boroomi xam-xam comme li yàlla waxoon ne wa ulil amri minkum atiu allah wa atiu rasula wa minkum foofu nañ ko tekkee ñaari it mais fii biñ koy tekkee mooy borom xam-xam yi ndax li mu wax ne la alimahu alladina yastanbituunahu mu ne loolu ñu koy def mooy boroom xam yi kon li muy tekki mooy borom xam yi yàlla may dayoo bu kawee bu dëgër ci xam-xam ñu am benn niveau bi ak expérience bi ci àdduna ak benn ñor bi ak benn dal bi nekk ci ñoom bu yenn problème yu mag yu amee noonu ñëwee ci jullit ñi wala yenn position stratégique yi ci daawa bi ak yu mel noonu ñu mel noonu lañ ciy déglu mais du sama classe bi nga xam ne amuñu benn expérience àdduna mbiru cër cërëf cërëf la ak mbiru xërëf xërëf joo xam ne li ngay def tegaloo ko ci xam-xam léeg yar bi sax du ci ànd la la nga ci war a xool tamit ci ay conséquences yu muy jur ëllëg ak yu mel noonu yëpp doo ko ci xool kon ñu mel noonu lañ ci war di déglu ndax yàlla ci ñoom la ko delloo bokk na tamit li ñuy dellu ci xadis bi mooy ne lépp lu nit di wax wala mu koy def bu ko tegul ci xam-xam na xam ne réer la ci moom ak ku mën a doon xam-xam bi wax ji ak jëf ji bu teguwul ci xam-xam ak réer la loolu mooy li mu wax ne fa dallu wa adallu kon koo xamante ne yàlla baaxee na ko mu am xam boo xam ne xam-xam bu mucc ayib la di xam-xam alquran ak bu fekkee jàngat bu mu ko jàngat wér na dina ci sukkandiku pour mu xamal ko ne daw fitna ak moytundiku fitna jubluwaay bu màgg la ci lislaam dafa bokk ci principe lislaam yi daw fitna ak moytundiku fitna loolu daf ci bokk boo demee ci téere borom xam yi moo xam ci pas-pas ci aqida la wala ci téere yi ñu taalif ci xadis da ngay gis ñu ubbi ci ay bunt yoo xam ne dañ koy def juste rek ci fitna ñenn ñi sax dañ daan def ci axbaarul fitan yenn ci as salaf dañ doon def ay xadisam dañ tuddee al ajzaul xadisiya ay téere xadis yoo xam dañ ciy dajale rek li ñu tuddee axbaarul fitan axbaarul fitan loolu ay téere yu bëri la ci kutubu xadis di ci dajale rek xadis yi ñëw ci fitna moo xam fitna yi saxaaba yi jamono saxaaba yi ak fitna yi ci ginnaaw bu fitna yi ñëw ci mujj yëpp lañ ciy dajale pour nit ki ko xam ko pour moytandiku ko ndax fitna dafay yàq diine fitna dafay yàq àdduna moo tax yàlla subhanahu wa taala moytandikuloo ñu fitna yonente bi alayhi salatu salaam moytandikuloo ñu fitna ne ñu a dee leen mustu ci fitna dee leen di wax audu billahi min alfitan ma dahara minha wa ma batan dee leen wax yàlla musal leen ci fitna ju feeñ ak fitna ju làqu fitna bu feeñ nga gis ko ak fitna bi nga xam ne sax bu sew la boo xam ne léeg-léeg doo ci bàyyi xel te mu mën laa gàllankoor yàqal la sa diine wala sa àdduna dee leen ñaan yàlla mu musal leen ci fitna yooyu mu doon wax naan des na tuuti rek alal ji gën joo xam ne ab jullit dina ko am mooy ay ay gàtt yoo xam ne daf koy jël di ko sàmm ca àll ba di dem di wër fu ñax ma nekk ak fi ndox mi nekk pour mën a gën a daw ci pour mën a gën a mën a sori yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk yi pour gën ko mën a sori neen des na tuuti rek alal jooju mooy doon alal ji gën boo xam ne jullit dina ko am alimaamul buxaari ci xam dafa ubbi woon ab bunt ne baabun min ad diini alfiraaru min alfitan ne bokk na ci diine nga daw ci jóge sori fitna daw sori fitna ak xeetu fitna yépp loolu moo tax kon mu jaadu bu baax a baax ñuy bàyyiloo xel suñu ndaw ñi ndaw ñi nga xam ñooy góorgóorlu ci keppaar alxuraan ak sunna bàyyiloo leen xel ci ne war nañoo gën a delluwaat ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen tane ci xam-xam di nekk ci seen wet di jaruñ ci seen xam-xam di jàng ci ñoom lu bari ci xew-xewu àdduna ak àdduna nu mu tëddee ak fitna yi àdduna léegi nu mbir mi jaxasoowee ba boo ci duggee sax léeg-léeg da dem ba da ngay réer completement ñu gën a de defaat loolu delluwaat ci seen wet nekk ci seen wet di jàng ci ñoom di jële ci ñoom ay orientation di leen laaj ay ay ay conseil ci lépp loo xamante ne dañ koy def loolu lu ama am solo la mooy di dugg ci xam-xam duggin boo xam ne sellul duggin boo xam ne baaxul duggin boo xamante ni rafetul nekkul lu lay jariñ daf lay yàqal rek dugginu dugg rek am loo coppati jël ko génn pour wane ne am na lu ma am loolu baaxul xam-xam da nga toog muñ ba am ci lu la may nga am loo xam ne di nga ko mën a jëfe jariñ ci nit ñi noonu la ñuy jàngi xam-xam mais pas dem fii rek coppati fa dara bu ëllëgee nga demaat tukki dem fële coppati fa dara am ab tuuti nu niveau arabe wala jàng benn téere boo ñëwee commencé ñu dégg la ngay wax ay baati arabe wala xam-xam kenn du ko jàngee noonu loolu ku koy def mooy ku koy def pour ñëw pour mën nekk di discuter ci jataay yeeg grand place yaag pour mën di wane ne am na lu ma lu ma am léegi am na lu ma fortaat ak yooyu ay yàqute rek lay jur ndax doo am temps wu jàng xam-xam ba dégg ko ni ko war a déggee ndax benn fànn ci xam-xam rek boo ko jëlee topp ko ba war ko maîtriser nga jàng def ay at benn rek nga spécialisé moo tax xam ci jamono yu mujj yi mu léegi da nga gis ne ki xam-xamu xadis ci le moom lay jàng donte yeneen yi am na ci niveau jàng na ko ma ngi cay gëstu mais lii la ci la spécialisé wu lu tax parce que dafa yaatu boo ko bëggoon jàngandoo lépp mën nga cee def sa dund yépp te daanaka doo ko moo tax ñu daan wax naan al aalimu man alima shay'an wa atqanahu wal adibu man alima min kulli shay'in shay'an wala yutqinu shay'an daan nañ wax naan ki nga xamante ne mooy borom xam bi dafay xam dara maîtriser ko bu baax boo ko laajee mu wax la ci loo xam ne du dañ waaye ki nga xamante ni genre borom culture générale la rek moom lu ne xam na ca dara waaye maîtriser wul dara loo ko wax rek am na lu mu ca xam mais maîtriser wul rien du tout waaw loolu mu am lu mu ca xam boo ca toogee moom tuuti discuter ci moom xóotal ko xam ne ndaka maîtriser wu ko daa benn géndee ko bu ndaw bu mu ca xam rek te loolu lu jara moytu la fu ne nga am loo fa coppati loo xam ne bu discussion amee nga mën cee wax yooyu amul njariñ amul benn solo kon bàyyiloo xel ndaw ñi ñu delluwaat ci wetu borom xam-xam yi te muñal leen muñal leen seenuk matadi xam ne ay nit lañ saxaaba yi ñoo ñoo gën fuuf suñu suñu génération yi ñuy dund te gis nga li xewoon ci seen diggante gis nga rëcc rëcc yi daan am di jóge ci ñenn si ñoom waaye bu ñu fàttalikoo seen i mbaax fàttaliku seenuk njàmbaar fàtte loolu nga xam ne am na lu jóge woon ci ñoom jéggal leen ko naka noonu tamit borom xam bi xoolal mbaax gi yàlla di jaarale ci ay loxoom di ci jariñ ay téeméeri téeméer ay junni junni jullit kon bu amee yenn rëcc rëcc yu jóge ci moom nga war koo mën jël daldi ko koy suturaal muural ko ko nëbbal ko ndax yonente bi alayhi salatu wasallam li mu waxoon mooy ku suturaal jullit fii ci àdduna bu ëllëgee yàlla suturaal la te booy suturaal nit day fekk mu am loo ko mën a suturaale mais nekkul ne ala kulli xaal borom xam doo ko tol toléreel quoi que ça soit lu mu def benn manquement bu ndaw nga mel na comme benn malaaka la mais yow def tegal sa bopp ci place am nga xool moom li mu la tane bu fekkoon yow yaa nekkoon ci place kon doon nga bëgg yow ku la comprendre doon nga bëgg ku la tamit euh, xëy na nangul say rëcc-rëcc ak say njuumte mais seytaane léeg-léeg mooy ñëw amplifier yooyu réel ko ci sa bët pour yàq sa xol ci borom xam-xam bi ba ni nga waroon jariñoo ci moom doo ko jariñoo ci moom al imam dem na ci jotaayu borom xam-xam borom xam-xam ci biti ne ko jóge fi bul fi ñëwati muy dem di làqatu ci ginnaaw bunt bi di déglu ngir continuer di jariñu ci xam-xamam dàq bi ko borom xam-xam bi dàq taxul mu dem dàq bi ko borom xam-xam bi dàq taxul mu dem yàq deram dafa xam ne loolu ci niteem la xëy na am na sabab bu tax mu def loolu waaye daan dem di laqatu ci ginnaaw bunt ba buy jàngale muy déglu lam daan jële ci moom ci ay xadis xadis yooyu soloo na ko ci téereem bi nga xam ne moom la bind taalif ko muy ak sunan da ci indi xadis ne dégg naa diw mu nettali xadis sàngam ci jamono ba muy jàngale fekk ne man maa ngi dégg li muy wax du wax ne nettali na ma daf naa maa ngi dégg li muy wax ndax ba muy nettali moom nekku fa woon dafa làqatu woon ñooñu looloo taxoon yàlla defal leen barke seen xam-xam lu mel noonu tey sañoo koo def ndongo luy jàng ci yow boo ko defoon mu wër àdduna bépp yàq sa der kon delluwaat ci seen wet muñal leen ci loolu te di leen comprendre am ci ñoom rafet njot day di di di interpréter seen i jëf interprétation bu baax xam ne léeg-léeg tekk gi ñuy ngay ci ñoom ak dal gi ñuy dalloo ndaw ñi nekkul ak ragal wala ngir bëgg lu neex Masamba wala demba mais ay mbir la yu ñuy xool di ko xool ca kanam yoo xam ne yow gisuloo ko te léeg-léeg li ngay gis ci xët-xët di ngay gis ci ñenn ñi tey ci monde islamique bi ñuy nekk di wane njàmbaar ak yooyu jeunes yu bari fugg boobu moo leen di yóbbaale ñu yaakaar ne loolu njàmbaar loolu du njàmbaar jamafoutisme la boo xam ne ñooñu seen yoon nekkul ci avenir u ñi seen yoon nekkul ci deretu jullit ñi ñuy tuur ak ñu tuurul seen yoon nekkul ci loolu li ñuy def dañ koy def conséquence yu mën a am lijjantiwuñ ko loolu mooy li alimaam ibnul Qayyim di wax ci différence bi am ci dëgër fit ak nekk jàmbaar mu ne ki nekk jàmbaar xolam dafay dëgër ci ne bu mbir yi ñëwee xol bi du dengi dengi bu waree avancer dina avancer fa mu war a avancer bu waree jël position na jël position bu waree def dara na ko def ndax yaakaar na ne yàlla dina ko dimbali dina am ndam ci li mu nekk dafa nekk ci kaw dëgg mu ne dëgëru xol googu ak sax ci ay principe am loolu mooy njàmbaar sax ci say principe mais mu ne nag dëgër fit bokkul loolu mu ne dëgër fit sama foutisme la boo xam ne ki koy def yoonam nekkul ci conséquence ay jëfam ay waxam lan lay jur ëllëg yoonam newu ci nee na loolu mooy dëgër fit te nee na dëgër fit googu baaxul day yàq amul benn njariñ léeg-léeg nag jën yu bari dëgër fit googu ñuy gis ci ñenn ñuy gis ci vidéo yeeg ci youtube bi ñuy nekk di xaabaabal di coow loolu lañ yaakaar ne ñooñ ñooy jàmbaar yi ñooy jàmbaaru lislaam yi borom xam-xam ay jàmbaar lañ wala dañoo ragal loolu loolu ndax ndax njuumte lu rëy la maanaam foofu am na piège bu garaaw bu fa nekk boo xam ne boo moytul rek euh, mënoo bàyyi borom xam ahlu sunna yëpp nga am ci ñoom ñaaw njort di ñoom position gis-gis yu noonu dem fekk benn inconnu boo xam kenn xamul kan la kenn xamul fu mu formé woo kenn xamul fu mu jóge parce que yaa ngi koy gis muy coow ko yuuxoo ko def ay yëf nga jox ko moom dëgg ci kaw borom xam-xam ahlu sunna yi te yow sa sa julli bi ngay julli ci jaamu yàlla di séntu boo lëgee mu jéggal la ci nga dugg aljana bu yàqoo borom xam yooyu ngay woo ñu defaral la ko buñ la doyul doy bu toll ne nga leen di laaj ci sa diine ñu lay jubbanti lu tax ngay ngay buntu yooyu nga leen ci am ci ñoom position yu mel noonu moo tax bi yonente bi alayhi jiitale Abu Bakar ci julli saxaaba yi biñ ñëwee ci war koo jox xilaafa gi dañ ne bu ko yàlla ak yonent bi alayhi salatu wasallam doyloo ci suñu diine ñu doyloo ko suñu àdduna kon borom xam bi boo ko doyloo ci sa diine ba bu soxna si wasinee nga nekk ci problème mu xayd bu masala miraas ñëwee nga jaaxle dem woowu ji ko ndax mu wax la ci atteb yàlla bi nga xam ne moom ngay jaamoo sa borom léegi bu problème yi ñëwee nga ni noonu duma ko ci laaj lu tax doo ko ci laaj kon nañ góorgóorlu ci loolu di bàyyi xel bu baax a baax conséquence suñuy taxawaay ak suñuy suñuy suñu position te li ñuy daawa tamit ñu ci bàyyi xel xikma bi nga xamante ni foog xam-xam am ci foog muñ am ci ku ku amul xam-xam mënta am xikma mënta am li ngay def boo ko tekkul ci xam-xam sagesse du ci am li ngay def boo ci àndul ak muñ patience xikma du ci am xët-xët moo ci am ak cërëf-cërëf bu ci ak teey amul loolu tamit du ci am xikma du ci am bu ci ak lewet amul lewet gi nga xam ne mooy tax provocation yi lay provoqué nga mën a toog muñ comme li yonente bi alayhi salaam doon def ca màkk bi muy julli di sujjóot ci kaaba gi ñu jël ay butitum euh, gëléem di ko teg ci kawam ba mënta siggi di jàpp ay saxaabaam di leen néewal doole ba di tuur seen deret mu leen di roobu naan sabran ala yaasir fa inna mawidakumul janna te moom mooy yonentu yàlla bi yàlla dig ne ko dinaa la dimbali bu dee moom moo mun a am maîtrise boobu ci boppam ba ne daawam topp ko étape par étape ba lu ci nekk brûlewul benn étape ba yàlla àggale ko fa mu ko war a àggale bi ñuy ñëw ci kaaba gi naan ko waaw doo wax yàlla mu dimbali ñu nag xanaa léegi alaa tastanfir lana ñu ngi ñuy fitnaal daf ne leen walakinakum qawmun tastaajiluun yàlla mbiram mi dina ko àggale fa ko war a àggale waaye da ngeen a yàkkamti baatu yàkkamti la jëfandikoo daawatu islam kenn du ko yàkkamti résultat wu daawa kenn du ko yàkkamti ay provocation yu la say noon di provoqué kenn du ci wuyu ci ay sentiment ak ay émotion xam-xam bu wér ngay jiital ak nekk njàccaar bu bu xool fu sori pour mën a xam lan laa war a def ci xew-xew ak yi may gis ak njàngat yi ma ci am loolu li yonent bi alayhi salatu wasallam boo jàngatee dundam da nga ciy gis loo xam jéggi na dayoo daraan génn madina sax war a jëm ci noor bi buy génn ci est sud bi lay jaar kaana ida araada gazwatan warra bi gayriha bu daan génn jëm ci noor war a dem noor sud lay jaar pour espion yu koy espionné ci biir madina ñu juum trompé wu ci seen information parce que seen nañ ko mu jëm sud alors ko bu génnee ba génn Madina dafay defaat benn détour bu rëy jëm ci noor bi lan moo tax mu daan def loolu bu ay noonam musaana dajaloo dal ci kaw mu yónni ay espion ñu dem infiltré wu leen pour xam lan la ñuy euh, rabbu jëmale ko ci jullit ñi loolu yépp ñu bëri dañ yaakaar ni xam-xam boobu ak science boobu nekkul ci biir l'islam moo tax des fois ñuy xeet boroom xam-xam yi parce que mbir ni ko xalaatee rek noonu nga koy àttee mais boroom xam-xam yi jàng siyaasa shar'iyya kenn gënu leen a comprendre politique moo xam politique gu geer la moo xam politique gu paix la moo xam politique bu mu mën a doon kenn mënu leen ko gën ndax stratège bi gën a rëy ci àdduna ci histoire mooy Muhammad ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam li mu réaliser ci histoire amul ku ko mës a amul kenn ku koy réaliser ti alayhi salaatu wasalaam kon jàng dundam jàng ay taxawaayam ak daawaam rek doy na inspiration pour jamono ju nekk défi bu taxaw suñu kanam ñu xam lan lañ ci war a def mais boo yaakaaree ne inspiration bi mooy xëy na jàng xam-xamu occidentaux yi yaa ngi làkk français wala dégg nga tubaab borom xam-xam yi ñu nekk di sax wax ak yow ci ay problème mu tel tel crise wala tel crise da ngay nax sa bopp. boo ci duggee di wax ci ay jihaat ak ci yu mel noonu ak lan lañ war a def dangay ngay juum ba xalangu ci suuf te doo xam ne juum nga yàlla nañ yàlla sàmm saxal ñu ci njub yàlla nañ yàlla sàmm sàmmal ñu suñu diine rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adab annar rabbana la tuzi qulubana bada id wa hab lana min ladunka rahma innaka anta allahuma aslix lana diinana alladi huwa ismatu amrina wa aslix lana dunyaana allati fiha maashuna wa aslix lana axiratana allati ilayha maaduna wajcal alxayaata ziyaadatan lana fi kulli xayr walmawta raaxatan lana min kulli shar allahuma inna naudu bika min zawali nicmatik wa taxawuli caafiyatik wa fujaati niqmatik wa jamii saxatik allahuma inna naudu bika min jahdi albala wa min daraki alshaqa wa min suui alqada wa min shamaatati alacda allahuma inna naudu bika min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma arfaci zulla walbasa an almuslimin allahuma aslih ahwaal almuslimin fi kulli makaan allahuma nafis karbahum allahuma ajbur kasrahum wa qawi daafahum bimannika wa karamika ya dal juudi wal karam wa salli allah wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain